asalaamaaleykum mbokki Gambia ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam toog fii nag dellu si fi rek ci toogaay boo xam ne moom la ñuy def ak yéen di seen xarit di seen compagnie bi nga xam ne mooy bi fi njëkk jiitu fi di Gamcel fas yéene toogaat fii rek waxtaan ak yéen defaat ak beneen draw boo xam ne moom la ñu war a defaat ak yéen muy lal boo xam ne dañ ko war a winaat ci week bi ñu ñëwoon fi nag di def draw bi di leen nuyu nag kenn ku nekk di leen wax ne suñ mënoon ñëw ba seen bunti nuyu leen ndax ànd bi ngeen ànd ak ñun ak jokkoo bi ngeen jokkoo ak ñun te taamuñu nag ci seen GSM yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne tey ñu ngi fi toog ànd ak kii di xam ne mooy Lamine Fofana nekk ci wàlli marketing bi ànd ak Mariam bi tey moom tamit nekk ci wàlli marketing bi rek wàlli joxe gi jox yu baax yi ñu leen a jox lu rafet li ñu taamu di leen ko jox lu rafet li ñu tànn te yéen rek tax ñu tànn ko ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ko tànn di leen ko jox kon nag balaa ñoo tàmbali waxtaan wi damay wax Lamine Fofana Lamine Fofana na nga def. maa ngi fi rek. Ah, lu waral toogaay bi tey. jerejef ya ministére ah, mbaɗiŋolu ko ya ministére yaa fo ñamen doron ah, natale ko nga fo ñamen lokum fula lokum fula doron mina jam pour nga rafulo ke pour mo se gagné ko nga fo ña wato wati gamsel ŋaniyo eh, be ñe pour kaje ko banko be fen soto gamsel bul bari ko nga fo ñamen ta be keno wati kilim fon sake rafulo waɗan kake alkuroti wala ñindi ko lokum fula lokum fula sina janga rafulo ke mo se gagné pour sa siran seto win o laran seto last week nga ke janne men gagné tan tata paya nga siron be sambaji a findatete to mo be ñabala bi fana be o kinol ke kan bi moñada gañana janna ama ɓe mona gañana wala laraŋoti laraŋ ba mi alaŋko very quality anala wardrop everything so mbal konton nawla allah ah, lamor ñimmala ah, mara bi tey na def lu waral toogaay bi tey ah, maa ngi rek bi li ko waral jàmm la mm-hmm. ñëwaat fii di ñëw nuyu suñ customers yi mm-hmm. ak mbokki Gambie yi ñoo seetaan yëpp mm-hmm. ñëwaat nag tey pour jox leen lal si droo bi rek niñ ko defee yëpp si kër gi promotion la ñëw nag tey pour jox la bedroom seet mm-hmm. mu ànd ak dressing table am ànd ak ay armoire am mm-hmm. ànd ak lu ne mm-hmm. lan bu rafet te yaatu waaw loolu nga fas yéene doxe joxe Mariam waaw waaw kon mbokki Gambie yéen a dégg rek li nga xam ne moo ñu fi tax toog tey joxe rek joxe boo xam ne doo sonn dañ leen a jox jox boo xam ne bii doo tàyyi jox leen jox boo xam ne bii doo ñaq jox leen jox boo xam ne bii dañuy jóg rek jox leen ko te du ànd ak nga ngeen sonn ñaq ba seen xol di patti patti loolu la Gamcel di def ak yéen jox leen jox boo xam ne bii da ngeen di toog ci seen biir néeg rek naan seen ndox mu sedd seen air condition wala seen fan di leen ëpp ñu kool leen ne leen ñoo leen di nuyu ñun waa Gamcel nga ne ñu lu xew ñu ne la win nga loo win lal loo win toogu loo win kër gi nga xam ne moom la ñuy joxe si ñun noonu la ñuy joxe joxe bu rafet rek joxe ci anam boo xam ne bii doo ci sonn ci benn yoon moom lañ leen di jox Gamcel ñoo toogaat fii rek di waxtaan ak yéen ca kanam tuuti dinañ def li nga xam ne mooy dro bi ñu seet nag ki nga xam ne tey jii moom la yàlla jox nag mu war a win lal bi muy lal boo xam ne bii mucc na ayib lal boo xam ne bii seer na lal boo xam ne bii yaatu na lal boo xam ne bii ànd naag armoram ànd naag dressing table am ànd naag ñaari boor yoo xam ne yi lu la neex teg ca wàll ma muy lal boo xam ne bii dafa ànd ak matlaam lépp la àndal ñu fas ne ko jël rek yow mi ko win ne tenkam ba sa biir kër jox la ko jox jox bu rafet jox la ko nag ànd ak suñu xale yi nga xam ne ñooy xale yi nga xam ne ñoo nekk gamsel te di ko defar ba mu baax xale yi ànd ak yar ànd ak teggin nekk gamsel nag di tànn lu baax di tànn lu seer di tànn loo xam ne dañ leen koy jox ci joxin bi leen koy jox muy joxin bu rafet joxin xam ne doo leen xale yaa ngi nii kon tey kan la yàlla di wërsëgal yàlla rek a xam waaye ca kanam dina leen ñëpp kon laamin nga xuus ci waxtaan wi ba ca kanam euh, mbaɗegol ko ah, mina bisa ñan toon han kawi kukirimo le mum mbaɗi sa koye ndal makko ah, kordañum fanan han sayen aɓe ah, silo kannanne andu sa wato man jamfa so momo be angwa ko be korda kan isa kata e fero yalla skemi karol dundi andu ɓakele ñamen wolemo gamsel layno foloñini nin gamsel layno tebul ibita gamsel officier le e layno sam very cheap mm. dala stalul kilinne mum ɗum niyasoɗo a le ɓe mm-hmm. men kel ɗon daskema kato sagela haajo toppotola haajo mum men tiɓorone kela mode budul bon la jeye mm-hmm. a mm-hmm. ko ñi se mu nafangala e nafa o ko ɓeɗa flo kela nin break botala kajo ko moye laran gagné laran mi yan kom fogol ɓa sambala foya e mari bataw baɗa teje ɓe silal sokonole dol fogol e na fo nga futandima nga foye ko laran fele gamsella ya dila ko nga ka ñamen ɗon wato wat waaw marim bi tey yaakaar naa ne kër gi balaa yàgg tuuti dinañ ko joxe waaye nag dama bëggoon nga wax nit ñi kër gi fan la féete ah kër gi nag moom mu nga bay Brufut Garden yaa hmm? waaw jàkkaarloo géej gi jàkkaarloo géej gi ngelaw li dina ëpp tàngaay du la rey ngelaw li rek a lay foofu waaw mu sedd na kaam waaw bërëb dafa kaam de kaam na torop hmm? kaam na torop hmm, di nga nekk sa jàmm. <laughs> kenn du la gétteen <laughs> waaw ba pare place bi rafeta lool <laughs> te yëpp lay àndal doo ñënd dara dangay ñëw rek ànd ak ak sa wólis looy def ca kër kër gi doo ci def dara yow laa wax looy def ñun lépp lépp nañ faa def kay ci dooleet la nag lan lu nekk lu kër di am rek. calal baak yëpp. yëpp toogu yëpp. tawel sax dañ la ko faa yëpp ñu defal la ko ci biir yëpp dañ def loolu nga te borom du sonn. du sonn du sonn de. comme ni ko waxee mm-hmm, mm-hmm. Euh, maa koy jox yëre waram ba wala gara ay garam bu ba. su dee daggit la maa ko jox. bu koy jox bu maa la koy jox. ndax nag dëgg dëgg gamsel jaral na ma ko te dinañ defar la ca biir nga gàddu sa waaye man sax léegi fi mu ne maa lay ñëwal defal la ca biir. kon naa kër gi nu muy demee foo koy joxe mbayo ni ko sen walti de hmm. ko dañi sain tan eh. da pare tale anna be dan wala mbur ful de ah. me alon ko dulale mi ko mobile faka sije ah. kan dulani lokuta ba hmm. feño ba kan ino hmm. ba dalale me alon ko mo mobile fe stage distobante je ko dolbe tila wato wati ino so dulale me alon ko ah, ko mata ba ke pour mo se sije ha bari nga sonen dalen ne wato wati ko da semet ron e bore na pour gataje ni je ko dañi fana effective babe kraje ko ya mi sere ya funya mata fo be la nyaano sa skena be de ni ga bakri dilale <laughs> a ko fana sanyin tay wala ba ko kan ba dara kan ni bi dal ila ba ko wuro ene wona bida fewo a ɓeewe jeela amma la ñuy def ci biir waaw euh, Marième bi tey nga fàttali mbokk yi naka la ñuy def moom ñu win ci lii nga xam ne moom la ñuy joxe ak kër gi li ngay def pour bokk ci moom yomb na mm-hmm. hundred dalasi rek mm-hmm. nga bokk si mm-hmm. hundred scratch card wala noppal hundred ak li ci tegu di nga mun a bokk ci kër gi yomb na lool every two weeks dinañ fi ñëw joxe lal wala toogu ba ba ñoo joxe kër gi. ba ñoo joxe kër gi waaw léegi tey. waaw léegi tey incha allah léegi tey moom ñu ngi bu leen toog xaar bañ ne ñu ngay lii kër gi ngeen ay a. waaw leen a gën a luut rek. naa sax ñu ne ñi nga xam ne dañu jëglu lu yàgg. a ci nomba bi nekk ci computer bi. ñëpp a ñëpp tey nga am mun nga am sa xëy na yow si force ñi force loo doon nga. Mhm. tamit na nga gën a luut. waaw gën a luut waaw pour nga mhm. increase sa chance. waaw xam a gën a luut moo lay a may chance. waaw nga xam ne mooy tax win léegi loolu moom ñëpp war nañoo xam ne su fekkee ne sa nomba bi dafa nekk lu bari bari bari day gis ne suñ ko raful muy dem di wëndeelu dangaa am chance pour sa nomba bi di ñëw di ñëw ba ba muy accès fi naan ko taj mu ne taj muy sa nomba mu mel ni daal gën a jënd moo gën a wóor waaye du tere jënd benn rek nag mun na laa may nga win ndax yëf yi wërsëg rek la yëf yi wërsëg rek la waaw yàlla rek xam na kan la koy jox waaye benn nomba rek la ñuy génne te nomba boobu yaa xam ku mu mën a doon dañu naan taj rek mu génn looloo a jotaay bi dafa gis ne fi mu nekk nii waa Gambie yëpp xam nañ ne mbir mi ni ñu koy doxalee set na leer na te óor na ndax gis nañ ñi nga xam ne ñoo win ñu di ko yóbbul ci seen kër yi gis ngeen ñi nga xam ne dañu toog seen biir kër rek ñun ñu raful fii seen nomba génn ñu win suñ winee dinañ dem ba seen kër te li ma ci neex mooy xale yi dañuy njëkk a dem sa place seet ko laamin seet sa kër nu mu bindoo seet foo dëkk ñu xam ko ba nga xam ne su bés fa jotee ñun bu ñoo dem muy bésu altine ci la ñuy joxe yëf yi ñun bu ñuy dem dafay yomb ndax fekk na boobu xale yi xam nañ fa du la bett nga yëgal ko ñi nga xam ne moom nga ko war a yëgal ndax ñu ne teraanga koo koy jox ñëpp war nañ koo yëg te nag réew mi xam nañ teraanga ndax ñun nag fa ñu demagum ñëpp ku ci ne lan ñu defal ci teraanga ak ña nga oo xam nañ ne lii ñu la jox yow dëgg dëgg dëgg dëgg xam nga ne jox nañ la lu baax dëkk bi xam nañ teraanga laamin noonu la dama wax ne rek wallahi ku baax rek kay xam ku baax oh, te nag ku xam lu baax rek kay def lu baax te kuy def lu baax waroo koo defal nit muy sonn sonn baaxut da ngay jox nit ca fa mu tëdd nelaw nga jox ko lu baax mu eyoo ko loolu la ñuy def ñun gamsel wala kumotile gamsele wala long wala waɗi gole fo ni ɓe fof en ndina toon kaƴol kay fini ka betere ase mari nafa mm-hmm. bari dangoto toon ka di mm-hmm. malef wala mm-hmm. because gamsel eh, aldigol lem gamsel ko gamsel mbele kan je banko bele tam oto ngame ni ɓe figo diila banko mol la ñantale ɓen ka be nafala kana komin dangoto toon ka fo ga le so wala na wato waɗenga figo diya ka mol contane dara dawoɗama haɗi ko contane bake ɓe ma figo men diila ha diye baga laɓago e fotan kam mbuñarol dol ke mi alon ko fang gamsel bugo fongo sentu fam buga ngakilo fongo lokan bar danaka e ka kontano men ke kaje ko gamsel de e ka fenkende bala sam manyana men ndawno ka fa sirango dara nin gamsel ko sira abata mm-hmm. nan mm-hmm. ko ronte <laughs> de sirana mi alon ko e tata dawo da mo wonde mm-hmm. buga balna ko nyinde ko nyato nya sirango lam Because ngara the best one, very quality one ngodi dan tata ah. silo kan da ka kapinda la sirango fele ngatani. So gamsel wala long. Warna dawo dan tata je